aca final ba nekk noonu diggante Lamine ak Moussa Lamine lay jaakaar loolu Lamine ak Moussa hee Lamine jaar na ko Lamine Lamine jël na làmb ji